waaw yoruma ko tey yoruma ko. waaye di ma fay wala doo ma fay di ma fay sama xaalis wala doo ma fay sama dix mille laa soxla. ok on est place. ñaari dóor. ñaar mais fii rek. mais dana xeeb ñaari. non non non. xoolal. bi ni noonu dama lay wax

nañ ma jox cër. am na loo xam ne mënatuma ko dékku. dinañ wax ak ñoom dinañ wax ak ñoom. dinañ wax ak ñoom dinañ wax ak ñoom. waaw wax ak ñoom. di bëgg góor bu bëgg góor bu bëggoo góor il ou est abat avec bëgg góor. kii dafa feebar. waaw man dañu bàyyi wala. waaw man bàyyi laa xam man fi nga nekk laa xamul fan la. waaye si fu mu ne. conséquence bi dugg tey. parce que il m'a traité de tous les noms. chose que chose que boo xam ne du ma ko accepté. ah non gis nga waaw waaw li ma def ni baaxul xam jox mu xool. Hmm? dama laa soxla li ma la soxlaa nag réunion la. bàyyi ma woote réunion kon. Baye. Baye moo tere ñu. waxuma ak yow. Aba naam maa nga fu ne ma waxuma ak yow. dëgg la dëgg la moo toog tey moom tey moom moo toog ma waaye moom la de moom la de. ak li neex na waaye. li ki xam taxawaloo jaay jàllaa bi doom la mu nekk yi. est la. non non du ma nit mbaam laa foxo cher la fay ma sama dix mille. ah fay ma fay ma fay ma. ah fay ma dix mille. ma ñàkk faa pees. xool mi teg na ma ah ah ah oui ma. xoola dama nekkoon ci ay yu ma doon. man yore na ma ah ma waxoon dina ma. jàpp nañ fay. yow yaa koy xoola xoola xoola. taxawal fi loolu. la taxaw li dal Salah dal na ma au ma coupe d'Afrique au ma coupe du monde. da daal da Okay. Alright. Alright. Point. Ding ma fay sama diine. Boo ma fay yoon. dinaa la no ba gàll la jaafuwaay oray ana ba ah aba ah, ki dëgg yuuxu la bu yuuxu la def <laughs> am na sax wala parce que